mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun dañu seetaan ba tey ñu ngi seen émission ëttu murit dalale ko fii ci kër Serigne Moustapha Sy moom Serigne Malick Bassine si ci euh, teewaayu xalifaam di Serigne Modou Mbacké si ñu àndandoo ak njabootuk Serigne moor Bassine si gépp ak njabootuk Serigne Mor Khary si waaye ak njabootuk Serigne Moussa Ka gi di fàttali ko waat dunduk jàmbaar jooju di Serigne Moustapha si jànkatu xasida bu Serigne Touba euh, sëñ Abdou Lahad euh, yaakaar naa ne déglu nga waxtaan wi moom it bokk ci njabootuk sëriñ Moussa Ka waaye bokk ci njabootuk sëriñ Malick Bassine si ni ñu ko seqee waaye itam doon borom xam-xam di ndaw luy dundal xam-xam ci Touba ak di ko dundee. ñi ngi toog ànd ak moom bokk ci commission bi nga xamante ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci Touba rawatina daayira bu mag bi di Rawdu Rayaahin e, bokk itam ci daayira yeneen yi nga xamante yëpp ñooy dundee xam-xam tey ji ñi ngi waxtaane sëriñ Moustapha Sy en tant que murid saadix waaye di waxtaane sëñ Moustapha en tant que jànkatu xasida e, sëñ Moustapha Sy doomi sëñ Malick Bassine Sy ana yan kàddu a andil Euh, jërëjëf sëñ Fallou Gala Sylla noo ngi lay delloob nuyoo di la joxum nuyoo itam nga joxal nu ko bokk yi nga àndal di nuyu bokk yi nu fekk ci jataay bi euh, di ci jiital sëriñ Mor si moom soxna Asuka ak sëñ Modou Mbacké si mii nga xam ne mooy xalifab sëñ Moustapha si di sunu doomi jaay di sunu mag di sunu xarit euh, ci tënk rek sëñ Moustapha si yàlla dafa defoon ginnaaw bi mu doonee sama nijaay ma am tawféex daan ko frekante daanaa ñëw ci moom lu baree bari eh, jànge ci moom lu baree bari it nag ndax jataayub sëñ Moustapha jataayub xam-xam la jataayub murid saadix la boo masaan ñëw ci sëñ Moustapha booy dëpp dangay def ne booy jóge fii rek dem àjjana ndax waxiin ak jëfiin ak saf xorom ak murite gi nekk ci moom loolu jàpp naa ne mbooloo mi toog fii yëpp mën nañoo seeri loolu xel lii nu kafeem rek xelliinu lii nu kafeem rek pastéef lay doon suy xelli kafe mu ngi jàng suratul fatiha ñetti yoon teg ci suratul baqara ba ci na door a tàmbale bu lay sànni guro wala lu mën a doon pas pas pas la koy defee Sëriñ Tuubaa it la cey roy li nu daan doon ndaw ci jamono yooyu itam téewut waxiinu pastéef yam daan wax ak nun bi yàlla demee nu dem ba màggaat ci sëñ bi màggug biir lañ door a dégg dëgg-dëgg wax joojee waaye anam gu ne wax na kook nun ci sëriñ bi moom nag yàlla dafa def mu doonoon euh, sama xaritu way jur ginnaaw ba ñoom ñaar ñu bokkee sëñ Malick Bassine soxna Khady si lu baree bari ci mbirum biir këram moo ko daan topp tool mu amoon ci man yéene it dem na ba ne ma ah, Abdoulahat wax wax ma ko nag waxin wu murite Abdoulahat bëggagulaa tëdd ak jigéen a ma daal di muuñ mu daal ne ma wax leen gaaw bala maa dem pour ngir wax la ne amoon na ci man yéene euh, daana nu jàngal itam sëñ tubaa jàngaluk biir xam-xam yu xóot yooyu nga xam ne itam euh, mandi woon nañu mandi na ci daana nu ci màndal euh, jànge nañ ci moom ab murit saadix piir ku bëggoon sëñ tubaa te bañ tubaab ni ko sëñ Mor waxee am na bis mu wax ne sëñ bi day yëkkatilu gaal yi ñu ko yëkkati ba gis ci euh, lu mel ni ab si ndax jaawale ko akub unk ne bañ ko tappatale tapp tappalee ba noppi ñu yëg ne kat du du unk ab si ndax la mu ne waaw dara yóbbuwu ko rek lu dul niru gi niroog loolee ñuy wax waaw mu ne nag niru niru lu mat naa moytu bu baax a baax ku bañoon colug tubaab la bañ tubaab ngir jëmmi tubaab bi gi ci moom loolu nag du caagee ne jëmmi tubaab bi la waaye dafa dégg bayit wi sëriñ bi di wax ne waa wa ahbibil muumini lil imaani wala tubuxidil kaafiri lil kufraani maanaa yéefar bi boo koy bañ kéefar gi ci moom ngay bañ jullit bi it boo koy bëgg na ko bëggee njullit gi ci moom imaan ji loola la doon dund daane wax ne sama kër gi ku fi sol colog tubaab yàlla boo jariñu waaw waaw képp kuy dund sëñ Moustapha ak di ko roy di ko bàyyi xel na nga bàyyi xel yaar na nga bañ a tubaabe te bëgg xasida fexe ba murite loolu moom mbirama woon danañ koy tudd nag di wax jànkatub xasida waaye du woon jànkatub xasida ni ñu miine jànkatu xasida ci anam gii maanaa xasida dafa bokk ci dafa bokk ci luy dundal am murit bu fekkee ne murit bi murit gi dëgg la ci moom ba sax ci xolam xasida day wara feeñ ci ay jikkoom ci ay jëfam mu di ko jàng ci wéet ci yëkkati ak ci yalu jàngkatu xasida nag maanaam képp kuy yëkkati xasida di doomi soxna da lay bir ne kooku ak rëy dañ na ci moom da ngay nangu ne kii ko murite la bi mu koy def ni ko sëñ Mor waxee defu ko woon ngir jàngal ko ma sàmba wala ma dem ba sëñ Tuubaa doon jàngal di yëkkati ca kaw dem na it ba ci am njàngam kenn ku ne xam na ne njàngum sëñ Moussa day ànd ak xaal ànd ak leer maxaarijul xuruuf bi it day ñëw day xamit li muy wax moo tax yëg gi muy yëg li muy yëg ci xasida yi buy jàng da ngay gis loxo ba di jóg muy joxar bi di di wane ne yeneen sëriñ bi mi ngi wax sallaa wasallama lii moom xam na moom booba kon li muy wax li muy firi daana waxtaan ak ñun waxtaan yu xóot daanañ wax ne bu alxuraan waxee ne wa man yuazim xurumaatillaahi ndax xam ngeen lan mooy xurumaatillaahi ñu ne ko déedéet mu ne xurumaatullaahi mooy fu yàlla fonk ku yàlla fonk lu yàlla fonk nga ne ma ku yàlla fonk ma ne la mooy yonent bi sallallahu nga ne fu yàlla fonk ma ne la Makka ak Madina ak dëkk yu mel ni moom nga ne ma lu yàlla fonk man la alxuraanul karim ak bépp téere bu ñëw ginnaawam di ko di ko dëggal xool googu dégg ni gi gi gi ak njàngale mu leer euh, daanañu wax it ne euh, bu bu doon firi huwa naasu wal misaanu niamal mu makkanu huwa naasu wal misaanu niamal mu makkanu ca euh, muqaddamatul amdaax mu ne salaawa sallama dafa am bis muy doxantu dem ba sab xur jékki-jékki rek gis yaari jëmm yu ne safeet sol lu weex nga xam ne jógewuñ fa sori mu di leen seen waaye dafa mel dañoo jékki-jékki rek ak agsi ci kanamam nee na mu taxaw ñoom itam ñu taxaw kenn ki xool moroom ji ne ko ah huwa huwa mu ne ko naxam huwa huwa xaqan nee na maa ngi ne tekk di leen déglu nee si tuut ma dégg am riir riir mu foor ndekk ay balance yu jógee ci kaw di ñëw ñu cëpp ci seen diggante balance yi or yu rafet nee na yaa ngi neex a neex ba ngelaw li sax da koy da koy da koy da koy da koy yëkkatee ka daane nee na salaahu ngi taxaw rek nee na si tuut ñu jël mboolem ruuxi bindeef yi jal ko ci benn balance bi jël saa ruuxuk bopp gi jal ko ci benn balance bi mu wat leen nee na ñu delloo ruux yi delloo ma sama ruux kenn ki daan ne ma ana jibril wa hadha mikail wa anta xayrul bariya waaw loolu suñu Mustafaa si moo ko wax ñuy dégg daanañu ko wax ay yoon euh, ci wàllu pëstéefam akuk bëggam sëñ Tuba ak jagleem gi nga xam ne yàlla ko ko jagleel di doomi mag di doomi nitu yàlla di doomi wali ba noppi amaat cër boobu dafa am benn bis benn daayira di ko ziyaara daayira bu tudd Matlabul Fawzayni doon sàkku aw moo leen jox tur woowu muy waxtaan ak ñoom ci xasida yi ngir am solo gum am solo ak nees ko war a fonkee daan ne dafa am bis ci ci njaareem waxtu tisbaar jot nee na sëñ bi génnut mag ñi di kenn ñi mut a jóg nag kenn ñi mu ko soññ it ndax xam nañ ne sëñ bi xam na ne waxtu wi jot na nee na ne cell rek ñenn ñi di talaayoonoo ko nee na si tuut sëñ bi daal di génn daan ne ma ne xanaa Moustapha si nekku fi xanaa Moustapha si nekku si ba nekku fi ba muy yett yoon mun ne ko doxal doxal jiite maa ngi ci sa biir lu waaw lu doy war doxal jiite maa ngi ci sa biir sëñ Moustapha dem jiite ba mu jiitee ba noppi ba dellu nag yëf yi xaw a jaaxal lenn ci mag ñi ñu koy ruumandaat euh, waaye kenn ñi mu cee wax dara sëriñ bi nag lépp lu mu def lu ne dana ko firi ndax day jàngale ba ñemee ba tàkkusaan mu dellu si moom sëriñ bi moo jiiteel boppam tàkkusaan bi mu noppee nag la wëlbatiku jàkkaarloog mbooloo mi daane waaw euh, sama xasida yi day am na ci yenti xasida yoo xam ne ku ko taqoo di ko jàng danaa dugg ci sa biir te dootuma génn yow dana da nga dugg ci sama biir dootoo mën a génn xasida sàngam la ak xasida sàngam ak xasida sàngam xam naa bu bu ñu weetee mën naa am ñu wax <laughs> sëñ sëñ nag daan ne ah moo tax sëñ bi wax ma loolu ndax xasida googu ñeenti yooyu bis bu set dama ko dappetoo di ko jàng waaw kon sëñ Moustapha amoon na ab cër cëru biir boo xam ne jëlale naa fii sëñ Malick Bassine si jaar ak sëñ Touba ak sëñ Mor ñoom ñaar di ñaari jëmm waaye moom itam nag am na pëseefu boppam ak jëfi boppam ak jikkooy boppam ak xam-xamu boppam ku bari woon xam-xam la di way ay way yu am solo yu rafet way arab ak way wolof doonoon itam ku ñëpp bàyyi xel ci koñ bi maanaam sëñ Moustapha bu ma saan dugg ci koñ bi da ngay yëg am na kilifa gu fi ne yàlla da ko defa da ko mooy joxoon xëy ba waaw boo naan tëll rek dangay ngay yëg ne am na ko ne fii nit ñi wekk ko rus ko moom itam mu xam boppam nag waaw léeg-léeg ma tooñ sëñ ma am na jikko yum jël ci moom dafa nekkoon ku xam boppam eh, dégg nga bu masaan toog nit ñi dañ naan rab kenn du wax ci sëñ Tuubaa lay xëy di ci gont eh, suba ba ngoon ci sëñ Tuubaa lay waxtaan boo masaan ñëw dana la màndal ci sëñ Tuubaa ba nga mànd ci màndi goo xam ne dangay def ne booy génn yow mi rek daal dem àjjana léppam sëñ Tuubaa la ginnaaw day am mbokk yoo xam ne jomb dañuy bëgg kii dana doon barkeelu rek jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Abdou Lahad yaakaaroon naa ne bu ñëwee nii rek lay mën a demee eh, kon ñu ngi dendu ci suñu loxol ndijoor sëriñ Falilou si Euh, mbokk yi ñu fàttaliku rek na yéen a ngi ànd ci seen émission ëttu murit di am ci seen télévision Lamfal TV alxames jot lay doon seen mbokk taalibe Fallou Gala Syll moo nekk ci micro bi ñu koy amalee fii ci kër Serigne Moustapha Sy euh, ci teewaayu euh, xalifaam di Serigne Modou Mbacké si kon dañuy bàyyee kàddu gi ak Serigne Mourtala moom itam mu ñëw yaakaar naa ne ñoom ñëpp dund nañ sëñ Moustapha gone woo ci moom ba màggandoo ci moom yaakaar naa ne nii ñu dégg ci sëñ Abdou ku leen joxoon ñoom ñëpp kenn ku ne ne la defal ñu émission ci sëñ Moustapha Sy da nga ko mën a andi waaye ñu andi ci rek ay kàddu yoo xam ne bokki yi daañu ko mën a jëriñoo. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu yëpp suñu kilifa gi fi nekk di Baye Mor ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo fii sëñ Moustapha Sy li ci sëñ Baye Mor wax sëñ di wax ko ci day men doy na waaye ñun liñ ciy wax rek mooy li nga laajoon Baye Mor ci ak bokk fonk ak bokk ak maanaam ñeme jaboote maanaam ku ñeme woon jaboote la ñun ñu nekkoon fii ñëpp xam nañ ko benn ci man mii bi nga xamee ne wax naa ko damay jógee mbaabaan tuxu si mun ne ma demal jëli bagage bi ma ñëwee mu ne man loo naroon loo bëgg na ma ne xanaa nga ñaanal ñu mën a dem mu ne ñu waaye dinaa la ñaanal waaye bul def njël bul def dara ñëwal ci man ma yor la man ku ma yor di la jox dépasse boo fa jógee da nga am dépasse ba da ngay dugg àjjana loolu moo ñu ko waxoon waaw ku murit la woon amoon na it bis boo xam ne bi amoon na ci xaas boo xam ne ci baaxam ni mu waxoon bëgg xasida rek dafa amoon ku fi ñëwoon nag ne ab jàngkat la xëy na eh, yaram bi tax koo kii lool lool waaye ku mokkaloon jës bu la ak mu waaye mu xaddimaat mu toog kii ci werandaay bi ne ko daa ñëw ne ko man de damaa dégg ne yow yaay takkal jàngkat yi soxna mu ne ko bëgg naa ko am naa pasté bi su ma ko mënee dinaa ko def mu ne ko mën nag ab jàngkat la mun ne ko demal fee nga jàng waaye ji dem nag li muy gàtt gàtt tari na fa jës bi ak mu bi mu xaddimaat ndax da koo tari rek ba mu mu wooñu ñun ñëpp ñu ñëw ñu fa toogoon mu ne waa ji de ku ci yor am mbubb ci yéen ma jox ko waa mu sol it ma jóg dem di bëgg a daw seeti mbubb waaye fàtt na damay fóor lu mbubb mi ma amoon bees tàq la mu summi garam bu ba jox ko mu jox waa ji ne ko solal mu sol mu daal ne ko ñaanal ko ne ko demal daal ne ma Mourtala kaay mu dem ci wëli sa mbubb mi soloon kon mu summi ko na ma sol mi demaat ba mu yàgg mu mu dem yëkk yëkk tubéy ji nekkoon na ma sol ko yëkkatiwaat euh, mbaxana na muy sëñ Abdoulaye ma ko joxoon daan ma koy jox loolu lépp maanaam du dara lu pastéefu ka doon ka doon jàng te am na mu mel tarifa gis ba mu waay boog mu xaddimaat ak bëgg gum bëgg xasida loolu moo waral jël ba Euh, ñun ñii fi nekkoon ni bit yoroon amoon nañ ci ñoo koo xam ne ku ñu mës ñëw rek dafa amoon responsable daal maanaam nga xam ne ñun Saalum mag mbo ci yéen kër suñu moo rek suñu Malick fi nee te doon fi kilifa euh, kilifa googu mu doonoon da ko ñeme woon te bàyyi ci woon da cee bàyyi woon xel fii ba Saalum sax ku mu dégg ne am nga mbir mu war a lijjanti da lay bind lettre boobu téléphone amul day bind lettre woo la ma nga ñëw mu lijjanti ko bari nañu fi ne ñoo xam ne moo leen takkal soxna ku masaa dégg na war naa mën a am soxna it moo koy lijjanti ku masaa dégg na war naa mën a sëy it mooy xam loolu yàlla dogal na xamoon na lépp da ko doon def daal da doon ba ñi war a am soxna ñi tam yëg tam yëg leen da leen di fexe ba ñu am soxna ñi war a am borom kër tam dañ ne ci biir tam jaboote lépp da ko daal lijjanti maanaam ku bàyyi woon xel kër gi la ku muritale woon it li ñu wax nii ak muritem mm, ñun ñi fi nekkoon ñëpp luñ xam ci murit rek moo ñu ko xamal waaw ku bëggoon sëñ Tuubaa la ku fonkoon ak mbokk la ku joxoon cër ay kilifaam la sëñ Modou Khady si mi nga xam ne moo doon magam eh, am na bis sëñ Modou Khady def ko xëy génn ak gaalam ubbi yére yëpp def ci wóoluwul kenn sëñ Moustapha la woon kaw yóbbul ma ko sëñ Abdoulaye sëñ Moustapha bëgg koo yenu mu ne ko Malick na ko yenu ko maa lay yónnee waaye am nga ndaw la yenul waaye sëñ Moustapha moo takk kaalam keroog ne sëñ Modou nañ ma yen gaal bi sëñ Modou moo doon magam nekk fi mag ñi dañ ko daan def jël yéreem yëpp dajale ko ci gaal gi woo ñu ne kenn ku na ci def dara daal na ne man woowal ma sëñ Moustapha si mu ñëw ma ne ko lii yóbbul ma ko sëñ sëñ Abdoulaye sëñ Moustapha takk ndigal nañ ma ko yan sëñ sëñ Abdoulaye na ko sëñ Modou Khady na ko am nga ko la ko yenul woo Malick Dieng mu yanu ko maanaam daal lu ñu wax ci fam ak bëgg sëñ tubaab ak muritam ak bëgg mbokkam loolu du ñu du xaj ci waxtu bi daal waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mourtala bégaat lañ lool eh, mel na ne rek eh, loolu ñu doon wax eh, dundoon naa ki bokkam waaye jaxasoo woon naa ki bokkam jariñ na it ay bokkam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 wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di am yéeney noonu nga xam ne moom la alquran wax te yoonu murit tëddee noonu nga xam ne duñ sañ jiitu sëriñ bi ci dara waaye bu ñu digalee duñ ci fas yéenaa defal desal dara mooy laa yasbiquunahu bil qawl wa hum bi amrihi yaamaluun loolu mooy yoonu murit kon ndigal moo ñu yëkkatiloo ay kàddu ñuy ndekon ku nekk xam na ne am na ci biir jataay bi ñoo xam ne su ma leen tegee bët rek sama xel day daal jox leen micro bi waaye ndigal bu xasee daal sa kaw dooma lu mooy jéem a jëfe ndigal la ndax li ma xam sama diggante li ma xam seen diggante ñoom ak sëñ Moustapha si bu fekkee nag suñ suñu suñu waajur Baye Mor Asuka dafa yëkkati kàddoom nekkoon rakki sëñ Moustapha si ñu bokk sëriñ Malick Bassine si nekkoon xaritam nekkoon àndandoom moo sëriñ Mor Hawa ñu siiw ci lool ci ñaari moor yi nga xam ne lu si Moussa si war a doxi rek day wax nañ moo wal ñaari moor yi si moor awa si moor asuka ci leen loola li ëpp ci dox dëkk bi daan leen ko dox loo kon bu yëkkatee kàddoom yëkkat sama kàddu dana xaw a jafe waaye ndigal dooma lu may jéem a jafe bi ci desaat mooy suñu Abdul Ahad Ka moom it xame naa ko si Moussa si lool daanañ ànd sax ci moom am na laaj boo xam ne man ak moom ñoo ko ko laaj gannaaw bu mu julee tisbaar ba noppi bu ma ko fàttiwu danaa ko indi ñu ñëw nag euh, siiratu saalihin sëñ Fadulu Silla mi nga xam ne ku nekk xam na taxawaayam ci yoonu murit ak doonte lu ne dana ko ci daj ak doonte lu ne dana ko ci dégg boo indee siiratu saalihina fii daarin min daari saalihina kon loolu delloo na mbattu ba ca ndaala kon sëñ Fadlu Gala Silla yaa ñu nga àndal yëpp ñu ngi am mbégte ci sa teew gi nga teew ci ëttub Serigne Mor Khady si ak ëttub Serigne Malick Bassine si jaaree ci buntu Serigne Moustapha si kon loolu am nañ ci mbégte bu baax a baax ñuy yëkkati kàddu nag ci turu Serigne ak ndigalal Serigne Mouhamadou Mbacke si mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Moustapha si ak ay rakkam yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp muy jàppoor Serigne Mor Khady si ak jàppoor Serigne Malick ak doomi Serigne Moustapha si ak i sëtam ak i taalibe Serigne Modou Mbacke si ñooñu ñoo teewee jataay bi ak i rakkam ak i dëkkandoom ak waa këri boppam bu ñëwee ci Serigne Moustapha Serigne Moustapha bi ma bindee kaamil ba ñëw jógee njaareem sama kaamil ba is jàngala la si na kafaru fii xulubihim alhamiyata rek paas boobu rek laa ca folli li ci des lépp yàlla defal na tawfiq ba kaamil ba benn paas boobu laa ci folli ndax dafa yàqu ma xoos ko bindaat ko bind si ba ma si yàqoon bi ma ñëwee indil ko kaamil bi ànd ak Cheikh Fallou defe naa ne sëñ Fallou mii mosi ci la woon ak sëñ Abdoulaye ka mii fekkee na ko waaw wala sofu yow ma kon day na bi ñëwee si néegu ñax bi ñu suñ moor asuka mii mii foon ak suñ moor awa biñ ñëwee mu ubbi kaamil bi walla taseeg wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mu ne liggéey bi dafa mun dafa munta taxaw daal ne ko kàpp daal ne ko nañ ko daal yot sëñ saalihu léegi ñu daal jot ci jataay bi xii na usine ànd sëñ moor asuka ak sëñ seex du may ñoo ñu dem bañ demee sëñ seex du moo joxe kaalaam seex fàllu ndaamaato joxe si jaadaam ñu ñu muuree ko kaamil booba bañ demee ci kër sëñ Tuubaa ñu fekk sëñ Saliou ci uh, mbaarum Daaru Salaam mi mun nañu nii jàll leen ci biir li mu wax ne kaay bi mënu taxaw rek bañ jàllee ci biir fekk fa sëñ Moustapha Saliou mu tëdd sëñ sëñ Saliou daal di gaaw jóg fi si ñëw fekk si ñu daal di ubbi kaamil bi tëjaat di ubbi tabaat di nabb nabbee rek ba mu yàgg mu ne sëñ Saliou si dencal ma ko ci gaal sàngam sëñ Saliou si nee na ma sëñ Saliou ba ma dencee kaamil bi damaa doxe ginnaaw jëlaat ko dencaat ko feneen loolu kon <laughs> mooy li nga xam ne mooy dox di dox di dox ba sëñ di wut ay bindkat sëñ Saalihu si wax ma ko ma bind bismil ilaahi yan moolohaa yi bilaa ma naax yi walantihaa yi muy bind wu ne bay wu ne nekk ñaari bind ci pàgguteef si Moustapha ñu yër ko ko fii si këru jannatu gi sëñ Saalihu ne mbind mi fi ñëw yëpp sa mbind mi moom ci gënal waaye dama bëgg ñu def ko nak Sëñ Tuubaa daan def loo ne bu mu nekk jimbilang bu mu nekk dollu bu mu nekk ba mbind mi dijji bi ma ñëwee mënu maa nelaw ma xam ne boo boo jëlee kayit gi nii muy moy kayit gu mag gi A4 bi moom la lay tere boo ko lemee ñeent yoon moom la lay tere boo boo boo te boo ko lemut ngir bind xaj ci tas yow te xaa wune bind day jafe bi guddi gi ma jóg bi ma jógee ma wàññi kayit wi ci ndeyjoor wàññi ko ci suuf sàttaar ci bi ma xëyee ma bind ci benn malaktu ba ma demee ci xaj gi ma jox ko ko mu ne ma nii laa ko bëggee ma ne ko ma xamoon loo ci taamu di mu mën na ko def te loo ci def nga defee noonu loolu kon di liggéey si Moustapha si boo xam ne bi moo taxoon loola bi kaamil bi yeggee nag ba ñibbisi mu ne waa loo taamu woon boo bu nga dem njaarim bu la neexee nga toog fi man ma ne ko man tànn naa toog fi yow booba la taxoon ma tànn ko damaa xam ne sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa nee na day weesu te jàngu xam-xam moom téere yi duñu fi jóg mukk loolaa taxoon ma tànn toog ci moom batax na lu bari dama ko daan dégg ci moom ci làmmiñam am na bis boo xam ne sëñ sëñ dafa julli maa maag Cheikh Abdou Kami ñu am luñ ko laaj muy ndeyjoor bi bind ko ci penk bi bind ko ci càmmooy bi bind ko ci ginnaaw yi maa Cheikh Abdou ko ñu laaj ko biñ ko laajee si jaar yi mu ubbee ci aw waxtaan nag wax ñu ko ba noppi ubbee ci aw waxtaan di wax nag ina lasina isa jaakal muminaatu yu bàyyi yeex nag bi mu koy bi mu koy firi nag prix mi rafet lool mu nekkoon ku dégg alxuraan mbaa mu xam ci lu bari ndax moom sax tere na ko bi ne xam naa ne sax jigéen yi daa ñu la dikkal la ko wax xam naa ne daa ñu la dikkal boobu hind moo doon tontul jigéen ñi waaye euh, sina Aliyun Omar toog nii bañ demee ba wax ja daanu Cheikh Abdou Kami daal ne ko sëñ bi yaa dégg alxuraan mu ne ko déedéet bu mu wax loolu danaan xam nga ci dara rek Cheikh Abdou ngi ñuy toog daane déedéet bu wax loolu danaan xam nga ci dara rek sëñ ah, sëñ Tuubaa nee na suuratu mulki suñ borom jublu saa wax ne ihda wa salaasuuna aaya dèjà jublu wax ne li dalee bàqara ba ci saaru suuratu mulki bii aaya ju si ne am na fanweeri maanaa ak benn Cheikh Abdou ngi ñuy toog bi ko suñu Cheikh Abdou ne la dégg yaa dégg alxuraan dafa tiit mu ne ko bul wax loolu danga naa xam nga ci dara rek sëñ Tuubaa nee na li dalee sóoratu mulki suñu borom jubluwut a wax ne fan laay ak benn la daa jublu wax ni daal bàqara ba muflixoona ba si ba fii aaya ju si nekk am na fan fanweeri maanaa ak benn ku bëggoon ku sëñ Tuubaa te bañ tubaab lool wax na ko si bàyyi ma junj ko waaye wax na ko si ab béy mu ne xubbi ya bamba saxiihu buxdi nasaara sariihu inna haada lamaliihu fii samaanin xad axawaynaa beneen bi wax ci mu waxee waa ne ku bëgg sëñ Bamba mu ne faasa muridun aaxisun bi zayli ahmadina bamba ahmadina bamba bi xayri nayli loolu kon bëgg bëgg sëñ Tuubaa kenn nattab liwul ko mu nekkoon boroom xam-xam bind na diiwaan diwaan bu mag man am naa ci ay xasida yooyu arab na ci yoo xam ne ay arab la sëñ Moodu du ñàkk comme Cheikh Fallou am na ci wan na ma du ñàkk ku mel naa ndax jaxasoo naag moom ak ñeneen ak ñeneen am nañ ci. waaye bi nga xam ne moom laa ci euh, bëgg a indi mooy bu gàtt la boo xam ne li tax ma di ko indi dafa taarixal demu sëñ Mor ak sëñ Malick gànnaar dama ciy jaar rek mu baasaratan bàyyeekook ñiy déglu ndax loolu laa ci doon bëgg a am naa ci yu bari bëggoon naa ko indi waaye ni mu demee moo wax ci ne bii sëñ Mor Khady Sy ak sëñ Malick Bassine bi ñu demee Gàndaar 1950 1905 ci la def xasida yi waxuma ne ci at ma la ko def de demu gaay laa wax ci la ko def daa wax ne te hayyajal qalbu minni dikra suwaaru xadimataha bi hubbin inda gannaari humur rijaalu daw tawfiqi man wathaquhu bi man yuwassilu daa qasdin ilal baari xad sallamu ay taslimin bila xawarin kullal umuuri lahu min xayri idbaari taxaqaqu bi ictiqaadatin bi ictiqaadatin waxad sharau tafaquhan bimtisaalin misla ahbaari rabba moom si ahmad bamba waraqa wa xalla baada taxliyatin xani radaili kullan misla axyaari nixmal mutaau wa nixma taabiuuna lahu wa annahu xayru xurrin wasta ahraari nihmal mutaamu wa nihmat taabiuuna lahu wa annahu xayru xurrin wasta ahraari man iqtafaahum kon indi na li ma doon bëgg wax mu ne man iqtafaahum bi aadaabin wa macrifatin yahus manaafica fi dunya wa fi daari kon li ma waxoon ne waxuñu ngir pookari wax ngir roy suñu Moustapha ko tey mu ne man iqtafaahum bi aadaabin wa maarifatin yahus manafia fi dunya wa fi daari bihi naru muqtifaan bihi naru muqtifa aathaarahum abadan yaa rabbi minka bi ixdaamin ka abraari wa bit taaddubi wa tasliimi kal xunafa mustanizina bi ayatin wa askari wa bil hadiyati wal ikhlasi kal udaba mustamsikina mustamsikina al masaya misla zuwari hatta nahu sarrida la suxta ba'du bihi kaman yutabi'uhu min inda man inda gannaari wa salliyan summa sallim bil kiraami ala muhammadin xayra man yahdi ilal bari bu ko defee ci relation laay bëgg indi ak sëriñ Sohaybu maa ngaa dollu ba dollu ba lépp mbindum mag ñi la sëñ xaasaasi moo ma ko donnale bi sëñ am di wàcceeb liggéey musi Mustafaa si moo ne ma dollu bii ak kaamil bi yaa koy jënd te man xawma ci dara ma ne ko waaw doolu ba nag mbindum loo xam si Moustapha bii moo ca ne sëñ son bi moo ko jox ci làmmiñam mu wax ne sëñ Moustapha bind si ñaari bayit wax ne mallaka nii sayyiduna Suaybu haazal kitaabu laysa fiihi aybu bi tiibi nafsihi wa tiibi kalkali wa birrida anniya wa tajammuli bi ci des muy digganteem ak sëñ Fadlu wax na ko ñëpp di ko dégg mu ne bis boo xam ne sëñ Fadlu damaa dugg si fekk ñuy ree ba daaneel si Moussa si na ma dugg mu ne ma si Moussa nala ma ñuy wax li ñuy ree nee na ñu bëgg wax mu ne waaw nettali sax ci làmmiñu borom daal na si Moustapha daal di fab loxo yi tegal mel ni kuy tàcc daal di ñii dama ne leen maag yàlla nii ñoom ñu ree ba kekku si Moussa ree ba daaneel sëñ Fallou nag si Moussa yi loo si ree yow si na nag ah damaa xam ne yaa ngi yàlla nii ñoo yow nii. mooy mu ree <laughs> sëñ Fallou daal di ree fekk jawaab jooju la soxla woon benn bis kër gii ñu nekk 1951 la ko sëñ Fadlu Mbàkke jox sëñ Malick Bassine si bi muy ñëw di ko léemu si sëñ Moustapha si la fa fekk mu toog ak sëñ Moustapha mu toog ak sëñ Malick Bassine ci néegu ñax bi wala lu ko niir wala lu ko jege. Euh, sëñ Fallou ànd ak sëñ Mor Aqiy Bousso sëriñ Baara Xuréja mi nga xam mooy taaw sëñ sëñ Maam Borom Saam ak sëñ Afe Ñang mi niyaayam ak sëñ Modou Massamba Diop Saam juróom ñooñu la àndaloon. sëñ Mor Aqee Bousso sëñ Afe Ñang sëñ Mor Masamba Diop Sam sëñ Baara Xuréja ak sëñ Fadil muy juróom ñu ñëw fekk sëñ Moussa sëñ Mari Basi muy juróom benn sëñ Moustapha si bëgg na juróom ñaareel sëñ biñ ne sëñ Fall ne nañ ko nañ ko kon nañ séddoo sa yaddu fa mu sëñ Fall sëñ Fall daal di xool mu bëgg nekk juróom benn juróom benn bëgg nekk juróom ñaar sëñ Fall daal di siite sëñ Moussa nag sëñ Moussa demal toog na li di ñaan loo ñaan mu nangu nee sama lijaa ba foofu laa ko <laughs> waaw te da doon bëgg juróom-benneel saar yi dafa doon juróom-ñaareel léegi bi suñu faalu ne waaw kon nañ ko séddoo sëñ Maari Ba si ne ko waaw yow de yaay jël sóoratu mulki yow sëñ sëñ faalu ne ko ah lu tax mu ne ko antal maliku mu ne ah waaw <laughs> biñ léemoo ba génn suñu saanee nañu gas pax mu baree bay mu xóot a mu sotti si ndox mu naan sottil muy sotti mu muy sotti ba mu waamee mu génn si si si si ma bi suñu faalu génnee ba tolloo fii kër suñu asaa gi nekk dafa fekk ak ëkkuk dimbu sëñ Fallou daal di yëkkati tànk mu tedd ba teg ko ci ëkkug dimb gi lii moom sëñ ma ko nettali daal ne ci yéen dimb waaye ci yéen dimb ci yéen dimb sëñ Asa mu ne ëkk gi dem ba mu yàgg mu jebbi te ku ne xam ne ëkkug dimb naka la war a mën a jebbee sëñ Fallou Asa mu ne bi ma xalaatee loolu ëkk gi jebbi la fi ba dee may xalaat ne kon lii karaama may may seet ëkk ga may gisuma ko sëñ Asa loolu la mu wax mu ne ma seet seet ëkk gisuma ko wax na wax na diggam ak lumbal lumbul euh, fa la njëkk a àndee sëñ Saaliwu sëñ Baay moo tudd na ko sëñ Musaa nañu ko ne daara ji sëñ Saaliwu njëkk a sanc daa dem Bambuk ca sëñ Maari Baasin di ko àbb sëñ Musaa si mii sëñ sëñ Maari Baasin ko demal sëñ Moor Xadi si mooy kilifa gi lu mu si wax rek da ngay seet ko am dëkk ko ami dëkk ami soxna ami taalibe am lépp te yilifoo sa bopp xoolal googu kilifteef gu rëy kooku bëgg nañ ñun ñëpp ñu di ko fàttaliku mu ne ko demal sëñ Mor Khary si lu mu dox rek mooy kilifa gi ba mu yeggee mu ne ko sëñ sëñ Moustapha si damaa jaar sëñ Mari Bassine doon ka àbb sëñ Moustapha si mu ne ma demal sëñ Mor Khary si ba mu waxee ba daanee sëñ Mor Khary si da ko ne ñun ñëpp nga soxla wala sëñ Moustapha si rek <laughs> mu ne ko sëñ Moustapha si rek laa soxla doy na beneen bi ci des mooy tukki boo xam ne moom la sëñ Saliou njëkk a tukki àbb ko sëñ mu dem sëñ Mouhamadou dem bu Jurbel sëñ mu ne bañ demee ba dellu si bañ àggee mbuur sëñ Saliou xemmeem ko ne ko fii de xemmeem naa ko lool sëñ sa sëñ sëñ Moussa si ne may naa la mbuur ak li ko wër mu nekk sama kër ga ca Touba daa xat lool sëñ Moussa si ne ko yaakaar naa la ko baaxay nu baaxay nu yaakaar naa la ko baaxay nu te booba kër gi dañ koo xaaj ci digg boo duggee boo duggee ci kër sëñ Saliou yi weesu xay gi sa ndeyjoor kees googu fi la kër sëñ Saliou ak kër sëñ Abdou tàggoo woon sëñ Abdou Lahad daa féete nii sëñ Saliou féete nii mu ne ko may naa la yàkkal ko ba xañ no ne boo na kërsim daal géeg ka xañ noog lépp jox ko jox ko ko te booba <laughs> ñibbiseeguñ sëñ soxay bi bi muy jaale ji sëñ Mor Khady Sy sëñ Aliou si lam sëñ Blaat moo ma ko nettali nee na sëñ mu soo sëñ mu si la àndal moo ko sant ba niñ yeggee bu dee ci sëñ Abdou Samad bu sëñ Touba sëñ mu soxay si nee na dañoo mas a tase dëkk bu ñuy wax sangap sëñ Abdou Samad moo ko woolu ba mu ñëwee lii si Moussa si nettali na ma ko sëñ Mourou Kabir Ka nettali na ma ko ca Xelkom ju njëkk ja 1991. mu ne ba demee ba fa jot mag ñi wax sëñ ñu jël délégation sëñ Abdou Samad bi yóbbu sëñ Moussa Abdou Samad bi suñu tubaab daan ne ko waa sëñ Moussa moom ñëw tëdd moom. bañ ubbee néeg bi nag sëñ Abdou Samad daal di fëgg lal bi daanaka sëñ Moussa ñëw nii ñu bokk tëdd ci kaw lal bi. mu ne ko du ko def mu ne ko ndigal la mu ne ko waaw am na ndigal yoo xam ne dañ koy wax waaye duñ ko def. nekkati loolu kon ba tey am na ci yoonu murit bu ko defee damay jégglu ndax mbir la mu yaatu ci ko amoon xamoon boppam la te amoon fulla sëñ Saalihu bi mu wootee wooteem bu boobee doon tere tereem ya ñoom si Modou bu Dieng ak ñëpp teew ci kër sëñ Tuubaa gi ba yàlla defee sëñ Saalihu ne ne ba feet wàcc ci suuf daane Saalihu li ma li lislaam di yi ñëpp ñoo ko bokk xamandoo wax ba daaneel ba mu ñëpp dañ ne cell ay gor yow door ay yat kenn mënut yëngu sëñ Saliou seulement la ci wax ji moom mënut a jóg kilifa yi doon déglu waxtaan wépp yëpp mënuñoo jog ngir diisug waxtaan wi sëñ Moussa si moo tontu yeewi leen sëñ Moussa moo jóg daal di wëndeel loxoom ba ak baaraam bu sew ba fee ca ndeyjoor ba daan ne sëriñ bi ñun ñi ñëpp ay gor lañ te kenn ku nekk yaa yilif sa kër. te fa bëgg rek nga fay dil rek moo fay dox lii nga ñu wax daañu ko def murid ñëpp ne kër kër kër kër daal di yeewi ko bu defee kon yooyu yëpp di si ku ay jikkoom yoo xam ne yuñ xamoon ci moom la tawfeex ji ci mujj nag nga xam ne man moom ak su defal mooy suñu seexu naa si mii talaata la wàcc ca guddi jëm àllarba mooy ah, guddi ba la wàcc waaye talaata la suñu seexu naa mi laa fa fekk ñu nefa nefa nefa musal mayluus bi dara jotu ko dara waaj rek ngir wàcc ab liggéey tëdd si jullikaayam bi bopp bi jublu penku tànk yi jublu nii sëñ Cheikh naa di upp di upp di upp ba mu yàgg ma ne ko indi ma awla mu barkeelu bi ma jëlee di upp booba ba upp ba mu yàgg mu fab loxo bi nii daal di may wokk daal di may wokk ma ñëw dëpp mu teg loxo bi nii def ko nii mu fab sama loxo bi sama bopp bi eh, yées ko ba mu ba mu suufee bopp bi ba loxo mi teg ci mu ñaanal ma. diir bu gàtt la ci teg ay waxtu yu néew muy ji boromam si Moussa man la mujj a ñaanal ci àddina loolu lépp di ay tawfiq yoo xam ne maa ngi koy sante sama borom di leen ko sante kaamil bi waxoon na ma ne ma danaa la may jabar ju ànd ak jabru jabar ju ànd ak jabru daan ne waaw xamu leen jabar ju ànd ak jabru ñu ne déedéet mu ne waaw mooy am kër taxaw te doo daanu maa ngi koy gis di ko sante suñu borom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. jërëjëf euh, Serigne Falilou Sy day mel ne géej la goo xam ne daal mool bu ne tefes gam dugge rek la xam lam ci defee kon xam naa ne sëñ la daa am lu mu bëgg andiwaat. lii nga xam ne moom itam mujj wut puse bi mu réer mm-hmm. euh, fu sëñ Moustapha yemoon rek dale na fa yokk ko ba bu sëñ Moustapha dellusi woon. Mm-hmm. maanaa xelam dana dal xolam dana sedd lool ci suñ Modou Mbacké si mii ci kërug boppam gi nga xam ne amoon na yéene yi defar ko ba mel noo xam ne ndax sëñ Moustapha ku civilisé la woon ku bëgg boppam la woon ku xëy la woon mboolem yéene jum ci amoon rek ju ko raw sëñ Modou Mbacké Sy def na ko ci dëkkam boobee ni daam nag xam ngeen ko ci mujjam cette place bu werte boobee ak Mor Ndiaye am nay jamono mënu ko sax waaye ngir dënd dundal dëkk ba ak samp ko door a dem loolu ci sun kanam la ñun ñii ñëpp yaakaar naa ko mel ni sëñ Seexu naa mii day koo xam ne da koo jege du ci mën a wax waaye moom ku dund sëñ Moustapha moo sëñ fallu si ma ca ndaamaatu ndax damay dajeek ñoom ci euh, saa ne kon sëñ Modou Mbacké si mii itam euh, ngir ngir ngir dëggal ni rek sëñ Moustapha mbooleem fu mu tegoon benn fexe na ba muy fukk fexe na itam bañ ba ba ba ba ba ginnaaw sëñ Moustapha mu wane waat ko jëmmal ko ba kenn dootu ko fàtte waaye itam nag wéyal ak bëggam ci daara ci dundal ci tërbiya mbooleem di sëñ Moustapha bëggoon daam boo demee sa xel day sa xel sa xol day sedd sa xel day dal yokku na ko def fa hôpital def fa jumaa def fa ay tëli tabaarakallaahu noo ngi koy ñaanal moom itam sunu borom guddal aw fanam sunu wëllëre la sunu mbokk la di sunu doomi nijaay waaye di sunu day sunu xaritu bopp nu ànd euh, li ñuy wax naan nit bala nga ko mën a seere da ngeen ànd tukki ànd nañ tukki bu sori tukki bu dagan muy màkkatal mu karrama bokk benn hôtel xam pëseefam waxtaan ci yu bare bari muy ko am engagement koo xam ne bu xasee jàpp du bàyyi waaw te itam kuñ xam la it ci dëkk bi ci taxawaayam day participer ci dégg nga xew-xewi dëkk bi ak xew-xewi réew mi nekkul sëriñ rek boo xam ne dafay yem ci kurusam waaye day sëriñ boo xam ne day participer ci doxuk dëkk bi ak doxuk réew mi loolu rek laa woon ne danaa ko ci yokk di ko ñaanal suñu yokk yokku kàttanam moom itam baax. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahad lu baax ku baaxa koy seere waaye dañuy wax ne li ñuy wax ci bokk na ko bokk ya seere kon sëñ euh, sëñ Mor dama lay jox ñaari minute rek su ko defee ñu jox sëñ Moustapha euh, sëñ Modou Mbacké moom itam mu yëkkati ci kàddu yi cant ñu su ko tëj jotaay bi. sëñ Moustapha si ñun dañoo xàmme rek fekk ko yett daara yi daara yi alxuraan amoon na ko ak daara yi tarbiya ak daara yi xam-xam daara yi tarbiya ji sax ba fi mu nekk nii am na benn benn bu fi des waaye màggat nañ lool mënatuñ dara daara yi xam-xam ji nag moom la ko waa dëkk bi xamee ñëpp xamee nañ ko ko daara xam-xam jooju nag ñi ci doon jàngal seen tur nag waaye xajut ci tàggoo bi kon dama koy dama buntu woo dama koy ub ma delluwaat ci diggam ak Cheikh Saliou Mbacké rek ni ko kii waxee léegi sëriñ Souhaïbou sëriñ Abdou Khadir sëriñ Moutala sëriñ Abdou Samad diggante yooyu yëpp fàllu si leeral na ko kon loolu jërul waxaat te loolu noonu dong la demee mu gën a xóot loolu sax sëriñ Saliou nag diggam ak sëriñ sëriñ moom sëriñ Moustapha si dafa yàgg ca njaarim la ba ci seen mujj ñoom ñaar bu ñu doonee mag boobu diggante lépp mënees su ko wax waaye dafa yàgg lool te te neex lool Serigne Saliou jàppee ko mbokk jàppee ko taalibeem jàppee ko léppam nga xam ne am na soxna si Moussa soxna bi muy wàcc fii Serigne Saliou ci boppam moo ko jëlil boppam dugg ci otoom dem jël ko indi ko wàcc ko fii delluwaat këram loolu ak bokkoo moo ko waraloon moo tax keroog ba Serigne Saliou doone xalifa <coughs> daal di ko nag sëriñ bi de yow doonoon nga sama xarit doon sama mbokk doon sama lépp ay léegi nag doonatoo ko mu ne ah mu ne ko da ngay sëriñ bi rek mooy taalibe bi léegi taalibe bi rek lañ seq léegi nangatuma nangatuma seq moom lenn bokk ak yooyu yëpp sëñ sëñ Moussa bi mu yoree daara sëñ Saliou Mbacke ca ca njàppatal booba booba sama maam Cheikh Moussa Ka mi ngi lumbel sayel jëflante ñu fa ay jëflante yu xóot ci wàllu njàng mi loo xam ne moom itam buntu yooyu dama koy ub rek xajuf si 1937 la booba di Hanses 1937 bàyyi kii ci la feeñoon ci jamono mooy Abdou Lahad mi toog nii foofee fa la sëñ Moussa sëñ Moussa si yore woon daara ja ba mu noppee ci liggéey booba nag la daal delluwaat sil ca bàyyam sëñ Malick Bassim dëkk fa ak moom fa sil sëñ Moussa si fa la aawaloo fa la sampee kër lañ wax ca sil googee biñ demee ba ci 1942 sëñ Mor Khari si wàccab nag sëñ Malick Bassim toxoo sil dikk Daaru ëndaale si Moussa si Daaru Salaam ba mu ñëwee mu sànc ak ci penku dëkk ba wan gannaaw baraba sëñ Mor Xarit si bi ndax nee na mënta xëy rek jàkkaarloo baraba sëñ Mor bi mu wan ko gannaaw sànc kër ga ci penku ba tuddee ko Daaru Xuddoos ba fa nekkee mu xippi ab teen si yoonu Caaxuwa di ko gas ba teen bu bënnee ca at sa di 50 sëñ la sànc Mbaabaan mu toxoo Daaru Salaam ëndaale si Moussa si Mbaabaan ñu bokk fa dëkk bañ fay nekk di fa nekk ba ca déwén sa di cinquante et un cinquante cinquante deux cinquante et un la fa ñëw cinquante deux kër Daaru Xudus ga lakk sëñ Malick sëñ sëñ Malick dafaa jógee màggal si gàmmu mbaa Daaru Salaam ba muy dem mu yóbbaale si Moussa si ba ba kër ga lakkee nag mu ñëw toxal sëñ Modou Xëri si Mbaabaan nga xam ne sëñ Moussa si benn at la jiitoo sëñ Modou Xëri Mbaabaan benn la ko fa jiitoo cinquante et un cinquante deux bañ demee ci mille neuf la sëñ Moussa si la sëñ Malick ko sanc fii kër gii sëñ Malick màggal na fi yaari yoon màggal si na fi 54 màggal si fi 55 54 nag 55 nag bi mu fi màggal see ba muy dem tàggu sëñ Fallou sëñ Fallou da ko ne bu rëy suuf sàkket ne ga ba muy àgg ci guddi googu ci la wàcc liggéey moom sëñ Malick yàggatu fi 1955 la sëñ Malick mujj fii toxu si Mbaba nag sëñ toxu si Touba ak sëñ nag moom it xisa bu gudd la waaye itam daanaka xëju ci ci ab tàggoo dama koy ni mu sañcee Touba ndax bi mu fi wàcc day ndigal rek taxawàcc fi metti woon lool juróomi dërëm la fi financé xëy tàngal ci kafe taxaw ba ñuy toxal lale mu gis ñaar fukk ñu toggee ci añ taxaw la ca topp lépp di xéwal Sëñ Touba yi ndax sima sima da ko joxoon ab sàq nañ ko nañ ko tàmbalee ci liggéey ba ñu bojj ko ca xaalu xel ko ma bu mu ko laaj ñu ko ah loolu ka defoon nañ ko ci xaalu ba mu ne Moussa yàllaa ko yor waaye ba mu fi ñëwee ba léegi yàllaa ko yor ñàkkut dara ca saasa la lépp ñëwandoo Mm, xëjut ci ma di ko nettali lépp li ma waxoon ne digg mag bokki camara dafa yàgg lool keroog ba muy jógee mbaabaan ba mu duggee ci oto bay bëgg a départ Ilimaan yoxe jox ko juróomi dërëm juróomi dërëm yor wàcce fii kon digg ma waa camara itam buntu la bu ma ubboon waaye yoon buñ toogee feneen fu gën a féex mm, danaa leen ko leeral léegi sëriñ Moussa si 40 43 lañ seen ci kër gii mu mu dëkk mu dëkk fi sëñ Mahi màggasi fi ñaari yoon daal di wàcc bi liggéey sëñ Moussa si ba muy nekk njàpp njàpp dal fanweeri at ci la tolloon bi muy dikk Touba ñeent fukki at ak benn la am ñeent fukki at ak benn Touba gi dëkk na fi ñeent fukki at ak juróom-ñaar bu ñu ko boolee mooy 88 ans la loolu la am ci àddina loolu la fi dund sëñ Moussa si mi ngi wàcc bi liggéey bi su àllarba di ñaar fukki ñett ci weeru rakkaati gàmmu ci weeru rakkaati gàmmu ci tiwaayu soxna si ak sëñ ci 1959 at moomu la wàcc liggéey yàlla na yàlla tax ci barkeem yàlla na ko yàlla jéggal kero bañ koy denc fii Seex Muntaxa mi bokkoon na ci taxawaay ba bañ koy dugal mi ngi taxaw tiim ko dañ ko dugal ci béréb ba noppi xel daj ndox aw niir tiim ñu ba tooyal suñ suñ bopp yi kër si mun xaa daf na teqet ree ndax xam la ndax loolu murid saadix ko mën am naa ko gannaawam ay gis wan na ma ne kooku murid saadix la kon sëriñ Moussa si yàlla na yàlla tax si barkeem jërëgéen jëf sëñ Fallou liggéey bi rafet na wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mor kàddu yi am na solo lool xanaa dañuy bàyyi ak sëriñ Seexuna si tudd nañ ko ay yoon ci jotaay bi moom it muccut mu indi ci ay kàddu yu gàtt rek su ko defee ñu soog ko tëj jataay bi. su ma ci bëggee seere sax damay far gëlëm du ma xam lu ma war a wax waaye ndigal xanaa jëfe rek la sant loola laa cee waxee muy suñ kilifa gii ñu ne naa ci wax waaye li sëriñ Abdou di waxoon rek yóbbaale woon na ma la ma ca xam daal bari na bari goo xam ne mënuma ma koo wax mu ngi mel ni daal suñu fàllu li may wax loo nga ma ma sëpp pusa ci géej naan ndox maa ngi nii noonu daal la mel ma bëggee jëm ci wàllu kër sëriñ Tuubaa yi ñu daan ànd gëlëm ci waaye danaa ci wax rek tuuti benn bis maa ngi moom ñu ànd dem siyaare ji sëriñ Abdul Xaadar bi ñu duggee ci nii bi mu ne nañ may sëñ Moustapha si ñu ñëw baaxam nga ak muritam nga ak bëgg sëñ Tuubaa gi ndeke fekk na ko ci sëñ Abdul Xaadar lu ko raw keroog mu ne ko ah sëñ bi de sa waajuru baax wa dafa waxoon ne ku siyaare ku mas a siyaara faw nga am siyaada imma saahiran aw baatinan aw xumaamaxan sëriñ Abdou Khadir suukar suñ tegoon ci kanam da ko puus leen ne ko sëñ Moustapha si xumaa mahan xumaa mahan daan ne sëñ Moustapha si moom murid la sëñ Moustapha si moom murid la sëñ Moustapha si moom am na bis moom sëñ Abdou Khadir moom mag am na bis maa moom ak sëñ Habib bu ñu daanaka waajtaay sëriñ Habib bu ne ko ah sëñ Moustapha diig da ñoo jaaxal ndax dañoo damaa dégg ba guddi yaa ngi jàng yaa ngi jàng xasaay yi mu ne ko ah sëñ Habib yaa ngi koy dégg ak mu ne ah mu ne boobu de Abdou Seydou moom ñoo ànd moom sëñ moom sëñ moom sëñ Dame Abdourahmane Lo booba ne Abdou Seydou ba mu faatoo léegi kenn xamul kan la oh. mu ne ah sëñ Habib da ko dégg ko waaw dégg nañ ko koy maa ngi ñoo ne sëñ ñoo ne ci nii bii tey ci suuf muy jàng guddi jës bi mu daanelee mu ne ko ah, sëñ Habib da koo déggee mu ne booba de bi ma koy jàng maak Abdou Seydou ñoo ànd kon kooku mëneesut a wax ci moom dara bëgg ga mbokk ak nam ñeme ko njaboot ak taxawaay ya kenn fekk ko ci maa ngi fàttaliku bi ñuy def xel ko muy xel kom ju jum jum jum jum métti ja nga xam ne daanaka mën nga ne mën nga ne murid da bañ fay jógee daanaka dañoo daw bi ma ko tàggoo dem dafa ne ma doo fa sonn waaw ñu luyee fii oto dem bi ñu demee ba ak liggéey ba takkusaani suuf jant bi xonk ñu ne dañuy ñibbi si man la man ñibbiwul ma doon xool ba xam sëñ Moussa li ma waxan na ma wax ne del nattu sa sëriñ bi ma wàccee gaa yëpp ñibbisi àll bi li ma war xaw ma fi doomu aadama xaw ma fi doomu aadama suñ biir oto bi am na fi benn waay boo xam ne ndakaaru la jógee ñu àndak moom bi ma nee cëpp rek mu ne ma sëñ bi da nga fiy def am fiy def oto ba dem man ma ginaaw mu ne nañ ma may daal di ñëw ne ma sëñ bi kat damaa waajoon waajtaayu yàgg fi waaye am dafa am wéradi gu daan dal te yëg naa ko sama yaram ma bëgg yóbbal booba yor naa ko ci xel koom ju metti ja fukki fan ak juróom fekk naa ci ñetti kilo yi meel fekk naa ci digg saakoy baraaj yu ñu defar ba noppi fekk naa ci juróomi kilo yi suukar fekk naa ci pot yu koy defaree fekk naa ci fukki mburu kon xam nga moom ak wilaayam waaw mu ngoog ñoo ci daan xewul ba ñu ñibbisee fii kon daal sëñ Moussa daal dama ci yemale foofu rek dama ci yemale alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf sëriñ Touba ñuy sant yàlla bu baax di gërëm sëriñ Muntaxa Mbàkke mi fi nekk sëriñ Touba ñu ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi te kàttanal ko te dooleel ko ba sëmb yim sëmb yépp ci yoonu sëriñ Bamba sama borom may ko mu àggali ko ba mu tàmbaliyaat yeneen te bokk koog moom sëñ Fallou Galass Syll la dal di yónnee ci Baye Mor Astuka ni ñu ko waxee ñun ñëpp muy kilifa gi xamal ko loolu gàtt sëñ Fallou Galass Syll la nee na dana dana dana fi ñëw waxtaani mbirum sëñ Moustapha bi loolu amee xanaa déggee nga ci waxtaan wi ne sëñ Moustapha moom doonu bàyyi kenn bàyyi bu ñëpp la maa kaana Muhammadan abaa ahadim min rijaalikum walaakin sëñ Moustapha Sy ah ndax kenn ku nekk lam séq yow ba mu ko waxee yow dafa nga ne yow rek la sëñ Moustapha Sy séqal kon murid saadix bu fi nekkoon la rek doon lëggéeyal sëriñ Touba ci askan wi mbokk ndigal it andi ko fi mooy ndigalam ci sëñ Malick Bassine si waaye mu dëppoo woon ci ak Cheikh Modou Falilou Mbacké yàlla dogal njaboot gii ñu war ñi ci ëpp sëñ Moustapha si ca lañ jàngee sëriñ Touba ñi ci ëpp yit ci këram gii lañ sempee kër amoon nañ sax ay lu ne waaye bëgg guñ bëggoon sëñ Moustapha si moo taxoon ñu fàtte lépp jàpp sëñ Moustapha kon nag yen waa ci yéen maa ngi leen di gërëm bu baax ndax ngërëm loolu tey bu si Moussa toogoon ni ma toogee dana leen ko sante gërëmay leen ko bu baax a baax moo Mor Astou Ka ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la ñaanal ndax yow mën na maa def yow seede suñ Moustapha si yéen a bokk wenn way jur muy sëriñ Malick Basin si yàlla dogal it nga séddoo ko mu séddoo la nga jàng alquran ba mokkal ko ni doomi soxna yëpp di defee lépp loo jàng ci xam-xam sëñ Moustapha Sy moo la ko jàngal def la itam tarbiya bii nga xam ne moom la sëñ waa soxla ci ab taalibe mu def la ko xamoo kenn it ku du sëñ Moustapha moom dong ci nga man a waxtaan waaye ñun itam nag amuñu solo waaye pas-pas ak bëgg ak jox la cër moom waxtu wu nekk daañu la ko jox loolu moom day obligatoire kon nag ñu ngi lay ñaanal bu baax rek yàlla kàttanal la dooleel la wéral la te defal na ko nun ñëpp sama bokki bopp yi fi teew ndax ñii nga gis ñëpp mooy kër sëñ Mor Khary Sy kër sëñ Malick Bassine kër sëñ Moussa Ka kër sëñ Birahim Ndiaye ñoom rek ñoo fi daje. kon doo mën naan diw ak diw ak diw waaye buñ santee Baye Mor Astuka sant baay Mor Astuka mii bu baax a baax ah sant sëñ Abdoulaat Ka mii nga xam ne moom it jël na fi kaddu sëñ Mourtala Abdourahmane sëñ Fallilou Sy mu Baye Modou Khary ñii ñëpp kenn ku nekk sëñ Fallou Galas xanaa li mu wax de fenn fu nekk defe naa boo demoon màkkam jullikaay it man nga koo teg ca kaaba kaaba ga ndax lépp wuti wut alxuraan kon nag kër gaa ngi nii lii mooy kër gi ñii toog ñooy Thiène ñooy Kayeen ñooy waa Kër Sëñ Ibrahima Ndiaye di sant sama yaayi bopp yële soxna na fi ñang ak soxna ñang si ak soxna yaa nga xam ne ñooy soxna kër gi bàyyiwuma kenn bis bii daal ñun lii lañ ci bëggoon sëñ bi nga xam ne mooy baaxal lépp it defal nañu ko ci sëñ Fallou Gallas yow day ànd ak yow liggéeyam sëñ Touba bi juróom-ñetti ba juróom-ñeenti at mosuñoo xuloo mosuñoo werante lépp loo xam ne mbirum sëñ Touba la buñ ca mosee waxtaan maa yow déggoo nañ ci ba suñuy kilifa de defe naa gërëm nañu ci te lii kon firndeel na la yow yaa lii rek kon ñu ngi lay sant bu baax ci turu sëñ Mor ak sëñ Malick Bassine su ma ko waxee mooy sët ak doom yi ñu ngi sant soxna yi toog lii daal mooy li nga xam ne moom la sëñ Fallou Galass la waxoon ne moom lañ fi war a def waxtaane sëriñ Moustapha sëñ Moustapha di man xam naa ci lu bëree bëree bari lu bari loo xam ne li ma ci xam dey defe naa ne alxuraan toll nii su ma ko doon wax su ma ci bindee danaa ci bind lu jege loolu ndax moo ma yar moo ma tërbiye li nekk ci man moo ko def ci man gannaaw bu yàlla wéyee kon nag sant ko ak ngërëmal ko loolu rek lañ mën a def la ma waxoon ca ndaam ni ko si Abdoulaye waxee ba ñu faa dem sax jekkulu fa jekkali ji ko fa ndax gis naa ne aw na yoonu gent te dëkk sëñ sëñ Malick Bassine si la fii ma toll ci àdd du fekkoon tollu ma fi damay dem daam dëkk fa ba ndaam dig ndaam mu ne ma Modou Mbacke ma ne ko Mbacke mu ne damaa bëgg nga defal ma ndaam ba ndaam dig ndaam man nag ñu musumaa ñàkk fayda ma ne ko soo ma defaree soo ma defaree nu ma ko defaree day danaa ko defar soo ma defaree nu ma ko mën a defaree danaa ko defar mu ne ma dana nangam nangam nangam nangam waaye defe naa tey bu ñëwaatoon foofa day du ma jéppi ña ko ànd li du ma jëpp maa ngi sant rakk yi nga xam ne ñoom laa bokk sëñ Moustapha Sy it seen taxawaay rafet na lool ndax loolu itam bari na fu ma àgg gannaaw yàlla ñoo ma jàppale nag gannaaw bu ma santee sët sëñ Mor Xal si ak sët sëñ Malick Bassin ak doom yeeg yëpp di sant soxna yee toog ñëpp tudd naa yaa na fi ña su ma ko tuddee tudd naa ñëpp di tudd Mawa Diagne ñam fa nekkal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi sant bu baax tey gërëm lii nag yàlla na yàgg yàlla na sax beneen ba ca toppi sëñ Fallou boo de bañ daan bañ ne ci laaj de boo demee njoos may la njoccat fi mu toll nga njoos nga sëñ Moustapha kër sëñ Malick Bassine war ngaa njoccat kër sëñ Malick Mor Xalisi njoccataat kër sëñ Malick njoccataat njoccataat boo ko defee kër gi ci boppam moo mel nii bëggoon naa daal lii moom dugg fi ay yooni yoon ndax sëñ Adama si mooy taawub sëñ Mor Xalisi ay rakkam yi yoo xam ne kenn ku nekk kàngam nga si mata Mariama sëñ nangam sëñ nangam sëñ Modou Fati mooy taawub sëñ Malick ay rakkam ak fi sëñ Aliisu sëñ Moodu xarit nangam nanga nangam nangam ba ci sëñ Abdourahmane kon nag yow dugg nga ci kër goo xam ne man nga fee yàgg lool te doon naa la ñaan it lii ñu aye ko faneen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, Serigne Modou Mbacke si jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan seen émission ëttu lii mooy li ñu leen tànnaloon ci kër Serigne Moustapha si. moom Serigne Malick Bassine si ngeen dégg waxtaan wi rek ngir fàttalikuwaat eh, mag ñu baax ñi hinda sikri salihin tansilu rahma eh, ya ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ci bàyyikoo ci tuyaaba wala baatin yàlla ko yàlla tisaari ci réew mi jëriñ ci jullit yi waaye jëriñ ci murid yi xaasatan ñu ngi ñaan suñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram di sant équipe technique bi ñu àndal eh, di Serigne Fallou Sila ak soxna Fati Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu